arrahmani arrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Chérif ñu ngi lay nuyu di la ziyaar fa tabaarakallahu di ziyaar tey ndokkeel mbooleem fu jullit nekk tey seetaan émission bi mhm. di seen suukaru koor di ko seetaan ci télévision bii nga xamante ni mooy télévision bii ñuy wax C2S TV mhm. Chérif yaa ngi dégg fa tabaarakallahu ñuy tari fatiha bi noonu mhm. li ma doon bàyyi xel rek mooy dang ko tari léegi siraata allazina an'amta alayhim léeg-léeg da ngay dugg ci jàkka wala nit jiite la nga dégg mu tari siraata allazina an'amta alayhim daal di def lu ñuy tuddee wasl waaye siraata allazina an'amta alayhim kenn du ko waslu ndaxte hamza gi hamzatul qat'a la kon siraata an an'amta alayhim manoo wax siraata allazina an'amta alayhim déedéet ndax hamzatul qat'a la kon da ngay wax siraata allazina am an'amta alayhim bépp hamza yow mi may déglu te man na am ngéeju woo lool ci wàllu naxwu da nga mel ni man bépp alif goo gis mu am bob boobu ca kaw moom la ñuy wax hamzatul qat'a bokkul ak hamzatul wasl bu dee hamzatul wasl du ko am su boobaa nag moom la ñu naan wa inta intalaahu alifun wallaam faksir wa qul li yaqumil gulaam bu ma waxee wasl mooy liaison su boobaa ca ngay def liaison ba par exemple fa tabarakallahu bu dee bii nag nga xamante ni mooy hamzatul qat'a kooku moom fokk da nga da ngay tudd hamza gi moo tax da nga naan ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim gis nga ihdina ihdina as-sirata mhm. foofu wasl la ihdina as-sirata waaye comme wasl la mooy da ngay def liaison bi nga ni ihdina siratal mhm. mustaqim ihdina as-sirata al mustaqima mhm. ngay def liaison yi ihdina siratal mustaqim fii nag mënoo def liaison bi kon daga naan sirata sirata allazina an'amta alayhim Chérif fa tabarakallahu fatiha ngi noonu defe naa ni àgg na ci jàmm macha allah mooy saar wi nga xamee ni julli gooy def te tari woo ko amoo julli bu dee tisbaar takkusaan timis gee suba naafila gu mu mënti doon day ànd ak fatiha bu fekkee nga ànd ak imaam mu koy tari ci suuf da ngay tari bu fekkente ni da nga ànd ak imaam muy tari ci kaw da nga koy déglu mu tari mhm. ndax qiraatul imaami qiraatukum mhm. jàng gi imaam di jàng mooy jànguk maamuum kon fa tabaarakallaahu bu fekkee bu muy tari ci kaw la ni ki timis wala gee wala suba bu imaam di tari ci kaw da koy déglu ndax jàng gi muy jàng def lay yóbbaale yow mi nga xam dañ lay jiite bu fekkente ni nag julli gu muy tari ci suuf la su boobaa moom da ngay jàng faatixa rek daal di déglu ñeenti rak yëpp da ngay jàng faatixa bu fekkee yow rek yaay julli tamit nga tarif sa faatixa kooku moom mënu la ñàkk Chérif defe naa ne tey bisu tàggatoo la dañu doon leeral loolu rek waaye bisu tàggatoo la bismillah Chérif tafsir Abdourahmane kon liggéey bi tabarakallahu yegg na rafet na set na na yal na yàlla barkeel la ci des amiin yaa mbooleem ñi nga xamante ni ñooy wax ci diine ci réew mi moo xam ci télévision yi moo xam ci rajo yi ñu ngi def lu baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel kenn ku nekk dafa wuutu moroomam ñuy jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa ci mission bi moo tax ñu ngi ciy gërëm mbooleem ñi nga xamante ni ñoo nekk ci organe de presse yi mm. di wax ci diine ak seen patron yi jàppale ngir lan ñu jotale mission yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñëpp ñu ngi leen ciy ndokkeel fa tabaarakallahu du ñu tudd tur waaye ñëpp daal boo tuddee kenn rek yóbbaale nga ñëpp waaye ñëpp daal seen taxawaay baax na rafet na yal na yàlla fay leen amiin yaa rabbal gis nañu tafsirul quraan yi rawatina fii ci kër gi mhm. ku mel ni Cheikh Abdullahi Gaye taxawaayam rafet na Mouhamadou Lamine Dramé lim ñu indil ci xulafaa ur rachidun rëy na rafet na mm-hmm. imam Dame Ndiaye fa tabarakallahu ak suñu jigéen ji mm-hmm. yor émission bi ñuy wax fa fattabiuni mm-hmm. tey fa tabarakallahu moom itamit innové na indi touche bu am solo buy émission bu ñu suivre ñuy ñaan yàlla yal na yàlla kàttanal ñëpp ñuy delluwaat di waxaat tam sëriñu daara ñi yàlla may pédagogie seeni mbokk xëcc leen ngir yàlla ñu dugg ci média bi di waxtaan ak nit ñi ndax amaana bu ñu toogee ci daara ji ñu ngi jàngal vingt cinq personnes waaye bu ñu ñëwee ci télévision ñu leen di gis wala ñu ñëw ci rajo ñu leen di dégg fa tabaarakallahu dinañu dinañu gindi lu ëpp des millions et des millions de personnes te tafsir wax dëgg yàlla monde de visibilité et de communication la ñuy dund waaye nga bàyyi rajo bi ku mel ni Chérif ay dara mu nekk fi di teel teeli rek di yàq rek te yow nga xam nga am pédagogie am éloquence waroon dem toog def liggéey boobu defuloo ko ëllëg yàlla dina la ko laaj bu dee amoon nga possibilité pour mën koo jottali ndax kat ku jot message bi yonent bi dafa newoon nga jottali ko nga jottali nag sa kéem kàttan xam-xam nag kenn mënu koo cerner yàllaa xam lépp ku ku xam loo mën a xam dangay taxaw naan subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana yàlla mënuma xam lu dul li nga ma xam loo kon nag suñu borom rek moo peek xam-xam ba mu jeex tàkk waaye ku nekk da ngay am looy xam keneen ki xam leneen kon nag ñàkkul léeg-léeg mën nga wax ndax nit rek nga nga juum loolu ñu ngi leen koy jéggalu li ko góor gu baax ga daan waxee rek nitu yàlla ba mu ne maa ngi jéggalu ñi nga xamante ni ñoo ma raw maa ngi jéggalu ñi nga xamante ni maa leen raw maa ngi jéggalu ñi ma maaseel alwa ñi ma raw amaana mën naa wax dara seen naw dog fekk du noonu maa ngi leen koy jéggalu ñi nga xamante ni ñoo tolloo alwa mën na am école bi ma jàngee ak ñoom école bi ñu jàngee du doon benn kon déggante loolu tam maa ngi leen koy jéggalu ñi nga xamante ni man maa leen raw mën naa juum su ma juumee puus leen yóbbaale leen ci njumte boobu loolu itam ñu ngi ciy jéggalu yàlla di leen ko jéggalu di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yéene bu rafet yéene bu sell moo ñu tax a jóg yàlla nañu yàlla dimbali dimbali nag kilifa diine yi ci réew mi tafsir sëñ Sidi Mokhtar mbakke yàlla feq fanam aar ko sàmm ko na Bachir taal tabaarakallahu moom i tamit ci mag ñi lañ fi dese ku baax suñu baay suñu sëriñ suñu kilifa kii nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al ak rakkam yu baax yëpp sëriñ Abdoul Aziz Al Amin sëriñ Mbaye Sy Mansour Cheikh Al Hadj Malick Sy Maodo Pape mu sëriñ Babacar Sy ak mbooleem ñi bokk ci kër gi ba ci mag ñi cheikh na cheikh Abdullahi Diop bàyyi sëriñ Lamine Diop ca Tëngéej nitu yàlla boobu nga xamante ni tey xalifa la xadaratu tijaniya di nitu yàlla bu mag tabaarakallahu imam Cherif sa baay faa ngi fàttaliku demoon na ca moom ziyaara ji ko mu génne njaboot gi yëpp ne leen dénk naa leen góor gi mm-hmm. góor gi tamit ne dénk naa leen sama bopp gis nga mag ñi mm-hmm. ku nekk da nga dénk sa bopp sa morom mm-hmm. ndax kenn xamul ku lay mujjee kon nag yàlla nañu yàlla dimbali tafsir euh, ñu ngi waajal tëngéej incha allah tëngéej nag dëkku Cherif at xaana ay dara la de tëngéej wax dëgg yàlla alaaji ibrahima saaxo foofu booy dëkkam de te ngéej wax dëgg yàlla cheikh abdoulahi jóob moom ma la doon wax cheikh xalifa foofu mooy dëkkam de waaye tëngéej ngéej sëriñ Babacar Sy borom may ya borom leer ya ngënk ma cheikh xalifa foofu dëkkam la woon kon nag waa Tëngéej da ngeen pare bisu korite waaye li ñuy ñaan muy ñëpp ànd ak yar ànd ak teggin nañu sañse ñëw toog ñu feetu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgguñu nag dara rax ko bëgguñu dara dara dara dara rax ko ñëw rek asalaamaaleykum dugg ci liggéey bi protocole ñu gërëmante wuñu defante dara dañuy ñëw dugg ci yonent bi feetu feetu lislaam ñun ñëpp ñu bokk ko tafsir yàlla na la yàlla may kàttan amiin yaa rabbal alamin la nga diggee woon de def ko ko tey de mooy fanweereelu émission mm-hmm. waaye de wax dëgg yàlla la nga diggee woon yëpp def nga ko yal na yàlla barkeel la yal na yàlla aar la yal na yàlla sàmm la ah, li ma li naqari rek moo ma naqari mooy <laughs> mu ngi jeex jeex na léegi xam naa déwéniti rek waaw tafsir taqali ko yombul de neexul neexul dafa metti waaye waxat bi <laughs> fa kayfa bi abudi nee na tàqalikoo fii ci àdduna <laughs> ci misaal damay joxe misaal sa doom ji nga muur muy dem di sëyi bu defee une semaine day ñëw for tànk mm-hmm. waaye nee na bu génnee kër gi rek sarangooñ tuuru te yaa ngi may ku ko bëgg mm-hmm. ku ko mën a toppatoo waaye buy génn kër gi une semaine mu war a ñëwaat sarangooñ day tuuru ndax tàqalikoo moo neexul mm-hmm. mu ne nag bu bu dappatoo ba nag nu muy mel mooy ba nga xam dootu leen gisante waaye ñun nag inchaa allah yàlla dina dogal dina ñuy gisante fa tabarakallahu yàlla bàyyi ñu fi yawit yàlla sàmm la yàlla aar la la ma la waxoon rek macha allahu mm-hmm. yow rek du shérif yow rek sama am du rasulillahi sallallahu alayhi wa yow rek santoo ay dara rawoo fi ñëpp macha allah am nañoo raw am nañu la raw ndax koo gis ci digg bi la nekk waaye nag mën naa seede sa xol bu rafet ni loo am moo la ko may fa tabaarakallaahu sa yaatu sa généreux ndax loo bëgg a bari le da nga koy joxe sërif loo am joxe nga ko moo tax doo banque macha allah mu dara du fi daje nag waaye doo banque soxla boo am yàlla faj ko beneen bi mooy sa daraja it koo dajeel jox ko ko moo tax doo ñàkk daraja mukk fa tabaarakallaahu sa xol yaatu na yàlla na yàlla sàmm la yàlla yàlla aar la ñu waajar rek incha allahu tëngeej mhm. incha allahu xam naa ni fa tabaarakallaahu waa tëngeej yëpp pare nañu mhm. waaye comme ni ñu koy waxee rek ñu ngi ko daan defee grand théâtre mhm. foofu 1800 place la woon ren nag góorgóorlu nañu ci jàppalek alxaaji Ndiaye ak 2 yëpp fexe nañu ba fa tabaarakallaahu am nañu cinq mille places jur bële ñaari junni place la woon yu manqué mhm. bi yoon nag wut nañu place boo xam ni teg nañ fa juróomi junniy seize wax dëgg yàlla nag mbokk yi bëgg nañu satisfaire ñëpp fa tabaarakallaahu ku ñëw rek incha allah di nga toog mhm. waaye bu ñu ñëwee tamit ñu suivre rek service dord bi mhm. fu ñu leen yem loo rek ñu yem fa fu ñu leen toog loo ñu toog fa mhm. mbir mi incha allahu 19 heures la war a tàmbali incha allah dinañu jël matuwaay yi ñu war a jël yëpp pour wàllu sécurité ak yëpp incha allahu kilifa yi di jàppale nañ ñu ci ba lépp incha allah am nañ yaakaar ni leen lu ne dina nekk fa war a nekk kon ñu ngi woo jullit yëpp fa tabaarakallaahu ñu ñëw ñu àndandoo ñu feetu ko ñu bàyyi xel nag bit bi waral ñuy def xew-xew bi mhm. du xew-xew boo xam ne dañ ciy wut dara mhm. dañu daan wax naan sërif daf leen tere jël daf leen tere saraxe waaye tere wu jël bi yoon nag tere ne ma sax jël mooy ñu ngi ñaan bu kenn saraxe ndax ku ko joxee duñ ko jël na ñëpp toog ndax émission télé la bu ko defee ñu seetaan ñu waxtaane sayidna muhammad sallallahu alayhi lenn rek lañ ci jublu mooy bisu korité bisu tabaski ñu baree bari dañuy def ay xew-xew tudde ko spécial korité spécial tabaski ndéwénal lu ne muy doon beneen façon xew-xew bu dul xew-xew bu dëppook lislaam mm-hmm. ñun nag ñu ñëw nag bëgg koo defee ñoo xamee ni yaakaar nañu ni dëppoo naak lislaam te yaakaar nañ ni dinañ ci am ngërëmal borom bi ndax woor fanweeri fan wala woor ñaar fan ak juróom-ñeent benn guddi ñëw nga yàq lépp ci ay caaxaan dara jaru ko mhm. kon nag bu ñu dajee waxtaane Seydina Muhammad julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam tudd yàlla ci laa ilaha illallah tudd yàlla ci allah allah yaa loolu moo ëpp yaakaar fa tabaarakallaahu shérif fa tabaarakallaahu ñu ndokkeel la bu baax yàlla nañ ci yàlla yóbbu ñu def ko ci jàmm ndokkeel techniciens yi ak ñëpp shérif defe naan loolu lañ amoon ci waxtu incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf ay dara kon nag bi muhammadin wa bintihi wa baaliha wa bnayhi musibtayni alaamil huda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fahum saadaatuna ahlul makaarimi jërëjëf xalif ay dara massa macha allah ah, ah, ah ay dara tabarakallahu ay dara tabarakallahu ay dara macha allah waaye déet waay yooyu nag ay dara <laughs> macha allah ay dara jërëjëf